asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé di waxtaan lépp lu ñel wàllu wérgu yaram euh, ñuy waxtaan nag saa su ne ci ay points yoo xamante ne dañu ci addo ak ay euh, docteur ay professeur ay tradipraticiens ak i euh, ay membre association naka noone képp koo xamante ne daal sa xel mën na jëm dekk ci wàllu wérgu yaram nga mën ci joxe xam-xam koo xamante ne dina njëriñ askan wi dañ lay jox kaddu fii ci SOS santé te ñuy dalal nag euh, ab ndaw euh, boo xamante ne kon mu ngi bokk ci réseau pop PopDev réseau PopDev nekk ab réseau boo xam ne dañuy yëngu ci wàllub li nga xamante ne moom mooy développement wàllu santé yi tamit dañ ci yëngu bu baax tey ñuy dalal ki nga xam ne moom mooy Khady euh, Ndongo nekk kon membre ci boobule réseau bokk yi tamit ci club des jeunes filles leaders Khady ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu bàyyi seen yitte yëpp di ñu aussi invitation bi bu baax. Mhm. man maa ngi tudd Khady Ndongo. Mhm. nekk au niveau du réseau jeunesse population et développement. Mhm. comme ni nga ko waxee réseau POPDEV nekk lu du di jàppale jeunes yi di seen affaire au développement. en même temps je suis au réseau club des jeunes filles club des jeunes filles bi tamit nekkul lu dul di xeex ak ak yelleefu xale yu jigéen ñi. Mhm. merci. Euh, di la jaajëfal bu baax ci euh, kon euh, ñëw gi nga teew ci suñu émission SOS santé donc tey Khady yaa ngi koy wax sànq réseau def dafa nekk réseau boo xam ne dafa yëngu ci li nga xam ne moom mooy bien-être population rawatina ndaw yi. tey yow. en mhm. tant ndaw lan moo la motiver ci nga intégrer réseau bu mel noonu. ok question boobu dama ci rafetlu tontu ko bu baax parce que boo gisee réseau POPDEV dafay dem ci établissement yi établissement yi club POPDEV lañ koy woowee léegi man bi ma nekkee CM dañoo jëloon dañoo dañoo gisoon waa réseau POPDEV di ñëw ci établissement yi pour créer fait un club POPDEV léegi du coup ma gis seen affaire de motivation yi commencement bi dama doon wax ni que non ñi seen kii amul njëriñ et léegi après bi ma demee ba ci bii gis li ñuy def ñoom tamit ñu defaat beneen renouvellement ma ne pourquoi pas mu postuler wu pour dem xool ñi parce que seen objectif yi nekkul lu dul di jàppale jeunes yi looloo tax ma dem di dox di dox dem ba nekk tamit stagiaire ci seen bureau bi. Mm-hmm. voilà léegi bi nga xamante ne dugg nga foofu ngay intéressé wu ci wàllu wér-gu-yaram euh, de manière euh, générale euh, parce que mhm. bëri na ay pàcc yoo xamante ne réseau bi def ci yëngu mais yow pourquoi tey nga taamu peut-être tey vélo volet santé bi voilà volet santé bi li tax ma taamu ci man de on dama ne affaire u sage moom laa bëgg a def en plus da gis li ma ci gën a motiver da ngay gis ay xale yu jigéen yoo xamante ne dañuy ay problème santé mais amuñu fu ñuy taxawee foo xamante ne dañ koy wax te aussi dañ koy ragal wax daal te nit ñi joxuñu leen seen àq. moment mhm. loolu lañ bëgg mu jeex. Mhm. moo tax man ma dem ba bëgg def loolu. Mhm. Euh, tey jii nii dañu gis ne yaa ngi koy wax sànq que euh, sujet yu bëri dafay am tabu ci wàllu euh, ndaw yi. surtout du jëm ci côté sexualité ak yooyu. tey d'ailleurs moom mooy sunu thème wàllu sexualité précoce ak IST yi. Euh, tey jii nii euh, boobu dafa nekk thème boo ne thème bu large la mais quand même déjà ci tabou yi ñu euh, dut fa baaxaam parce que bëri na ci loo xam ne moom mooy peut-être enfreindre yenn progrès yi ci côté boobu. waaw côté tabou bi man damay naan comme di nga gis jeune ado boo xamante ni ngi toll ci affaire u jànku et tout lenn la nan lay def pour waxal parent am lii lii comme genre affaire u règle yi et en plus parents yi ñoom tamit duñ leen ubbil seen kanam suñuy waxee seeni problème dañuy dem nag léegi ci réseaux sociaux yi pour ubbi pour xool foofu noonu ay ki nan laa koy waxatee ay information te foofu sax mën naa ne duñu duñ leen jox la bonne information hmm. mhm. lu tax nga ne duñ leen jox la bonne information parce que le fait que ma ne duñ jox la bonne information buñ fay dem seeta seet nañ loo xamante ni du leen jariñ lu baax di gis benn jeune am ay problème bu duggee ci internet lan lay seetaan comme wax nga ko y' a pas de sujet ay affaire de pronom moom lay seetaan. Hmm. alors que mieux vaut jeune xam nga ni am nga ay problème boo waxul ak sa nga dem sur les conseil ado ñoom loolu lañ ci nekkee pour jàppale xale yu ndaw yee problème bu ñu am. parce que wax nga ko léegi dangay ngay dem parfois ci hôpital nga nekk ndaw nga laajte yenn mhm. service yi mais am na bët bu ñu lay xoolee bët boo xamante ne parfois doo ñeme torop moo tax mooy parfois indi réticence yi ci ndaw yi. waaw loolu aussi dëgg la parfois da ngay dem ci district de santé de santé yi di leen wax ne ni ñu lay accueillir baaxul loolu di loolu moo tax loolu dinañ ci nekk di xeex chaque jour parce que boo gisee am nañ benn kii de sensibilisation bu ñu doon def rien que pour waxal district de santé yi ni ñuy accueillir les jeunes entre entre jeunes yi aussi ñoom tamit bu ñu am sujet tabou entre waa centre conseil ado ak waa district de santé bi du ñu am rek bu ñu leen nëbb ñoom tamit ñu dem wax leen ko même bu ñu leen accueillir ak lu bon ñoom affaire bi seen bien la nañ dem wax leen loo xamante ni moom loolu la ñuy jar nañ ko tey jii euh, sujet bi nga xam ne ñu ngi koy laal wàllu sexualité précoce ak IST mu nekk sujet boo xamante ne sujet la quand même bu bu yaatu mais tey jii mhm. yow ban volet tey nga ñu mën a wax pour que vraiment askan wi gën a xam euh, sujet bi ci vraiment yan ponk tey jii nii lañ ci war a mën a euh, sukkandiku pour vraiment amélioration am ci. voilà sexualité précoce moom. bëri na trop am na volet bu kii comme ni nga ko waxee buñ ko doon nekk di débat yi sax tey duñ fi jógee mais côté bu ma ci gën a insister mooy grossesse précoce boo déggee grossesse précoce grossesse mooy ëmb mhm. précoce mooy lu teel grossesse précoce tamit nekkul lenn lu dul ëmb ndaw yu tel yi parce que da gis benn jeune boo xamante ni mi ngi âgé de quinze à dix neuf ans boo ko gis lu dul mi ngi nekk am doom alors que butitu njurukaay matul. te loolu tey yéen da ngeen ci gis cas yu bëri ci euh, seen réseau bi. voilà gis nañ ci cas yu bëri établissement yi aussi am nañ ay cas de grossesse yu bëri te boo gisee sept mille euh, adolescents ñu ngi gaañoo chaque année pour lan ak ay complications yoo xamante ni seen grossesse wala seen accouchement et six millions de personnes jeunes filles ñu ngi nekk di ëmb ñoo xamante ni am nañ quinze à dix-neuf ans. Mm-hmm. loolu dafa nekk ay statistiques yoo xam ne da ngeen ko def. waaw loolu dafa nekk ay statistiques yoo xamante ni ñu ngi ciy ñu ngi koy def bu baax dañ ko def. Eh, tey jii nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy par exemple xale yi ñëw euh, di di ci seen centre ado yi parce que centre ado yi déjà est-ce que tas na fépp aussi est-ce que euh, ci au niveau de des régions par exemple am na ay centre ado yoo xam ne xale dinañ fa mën a dem te yéen waa réseau POPDEV ngeen di ko saytu. non centre conseil ado yoo xamante ni yi fi nekk xam naa xam nga am na yeneen ONG yoo xamante ni ñu ngi ci région yi mhm. ñoom aussi dinañ am ay centre conseil ado mais comme si au delà de kii nii Dakar am na jeunes yoo xamante ne dañ leen bi ñu amee école dañ leen ay man stops am yu am boo xamante ni am na centre conseil ado boo xamante ni aussi am na biir biñ ko biñ ko kiiwee yàggul noonu ak waa UNFPA voilà donc ba tey rek euh, ñuy déglu euh, mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñuy euh, dalal waa réseau PopDev Khady Ndongo kon tey jii nii ñu waxtaan wàllu IST ak li nga xamante ne kon moom mooy wàllu grossesse précoce tey jii IST yi lan nga ñu ci mun a wax comme information ci wàllu IST yi. nekk na ay infection yoo xamante mu ne ay infection sexuellement transmissible infection boo xamante ne yow ku jigéen ki mun nga ko am boo ko amee comme xale yi fii ñoom euh, comme ni ma ne sànq grossesse précoce mun nañ def ay rapport sexuel non protégé buñ ko defee mun nañ ko wàll transmettre ko keneen keneen aussi bu ko defee mën na ko ñëwaat wàllaat ko keneen léegi boo gisee infection bi tamit mën na nekk comme genre yow nga bañ a loolu mun loolu da koy indi. nga bañ a seet c'est-à-dire. c'est-à-dire que comme parfois di gis kenn koo xamante ni comme mi ngi gis règle am. service mhm. hygiénique bi mën na koy nekk di bañ a changer alors que dañ ne chaque deux heures de temps wala une heure de temps war nga ko changer loolu bu yàggee mën na la indi ay infection comme genre aussi ngay sol ay slip yu serré aussi tamit. loolu tamit mën na la indil ay infection nekk foo xamante ne aussi comme genre toilette yi nga xamante ne setul aussi mën na la ko indil léegi yow du coup boo fa defee boo defee foofu rapport sexuel ay infection sexuellement transmissible lay nekk. Mhm. kon tey jii nii da nga bëgg a wax ne tey wàllu hygiène bi déjà euh, bokk na ci li nga xamante moom mooy premier rempart bi pour mën Euh, saafara li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yooyu nga xam ndaw yi dañ koy am tey jii ci côté hygiène bi hygiène bi nga xamante ne ndaw bi war na ko am pour mën a toppatoo boppam comme il se doit tey jii ni est-ce nga ñu wax ci ci ponk boobu noonu. xam nga règle nekk na avant lor avant la ak après yow normalement avant balaa ngaa gis say règle war nga préparer say services comme que yaa ngi gis ni sa date règle yi normalement war nga kaa jàpp boo gisee ni genre que sa biir mi ngi metti war nga xam ne a ah, lii kat règle yaa ngi a ñëw foo jëm même boo utilisé wul euh, les serviettes hygiéniques mieux vaut nga jël les protèges Philips nga jël benn protège Philips def ko sa saak nga koy gànnaayoo balaa parfois da ngay gis man laa koy waxee nga jël nga gis affaire règle yi di takk sa Philips et parce que parfois da ngay gis koo xamante ni mi mi xelam génnu na ni sax si tubéyam bi takk na deret wala loolu léegi bu ñu paree ñoom service hygiène aussi nañ ko wax a di changer chaque une de temps ou deux de temps aussi ndox war na am parce que da gis aussi même les jeunes yoo xamante ni seen établissement yi ndox bu baax sax amuñu ko pour mun a changer seen service hygiène bi tout loolu tamit war nañ ci kii bu baax. Mm. mais tey par rapport ak par exemple accessibilité bi parce que serviette yi tey mun nañu ne bëri na ci ci ci ci commerce bi da nga ciy gis mhm. bu nekk mais parfois aussi est-ce que euh, serviette noonu dina adapté tey jii pour que vraiment ndaw yi mun ko jigéen ñi mun ko jëfandikoo parce que da gis ay serviette c'est moins cher mais parfois ñu mhm. koy exposé ci mbedd beeg yooyu dafay xaw a doy waar daal voilà serviette yi tamit bëri na trop chaque jour nga gis boo xamante ni tur bu nekk la chaque jour nga gis tur serviette bu baax bu bees mais yoo am na yoo xamante ni aussi baaxul da ngay gis yoo xamante ni comme ni nga waxee nit ki day jaay sax exposé ko ci naaj bi ba yow du boo ko tegee mën na la indil ay picc et tout man comme genre bi muy utiliser ba ma dalee gis sama xeetu ba léegi ba léegi defuma dara. mais dégg am na ñu naan aussi yu cinq cent yi ñuy jaay comme genre ci marché yi ñeneen aussi yooyu baaxul parce que ñu ngi koy exposé ci mbedd bi te ñuy ñuy dem jënd yeneen serviette yoo xamante ne ñu ngi koy jaay mais pas moins cher am na yoo xamante ne ay six cent lañ koy yo ci yooyu. Euh, voilà euh, lu jëm ci sensibilisation bi tey yan activité ngeen di def au niveau de seen réseau PopDev pour euh, informer jeunes yi. ok comme pour établissement yi. foofu bu ñu fa installé ay club ba pare dinañ def comme chaque mercredi am na ñu naan mercredi pop dev dañuy woo jeunes yi suñu réseau pour di leen former ci ay affaire sexualité précoce léegi après ñoom bu ñu paree ñoom dañuy organiser seen activité boo xamante ni ñoom ñooy dem di sensibiliser ñoom seen waa école wala seen xarit yi ci milieu communautaire yi di dinañ dem si ay association yoo xamante ni dañu ñuy di ñëw di leen sensibiliser aussi ci ay affaire u process fay ko ak pandémie bi comme ni mu ñëwee nii dañuy def ay activités par zoom wala ay facebook la yoo xamante ni dañuy animer ay émissions mm. pour gën a mën a passer information bi au jeunes mm. euh, parce que euh, est-ce que tey aussi jeunes yi tey ngeen mm-hmm. daan def communication de masse bi maanaam ñi ñi di toog est-ce que mm-hmm. jeunes yi daan nañ wuyu si est-ce que daan nañ am intérêt ci ci mbir mi waaw jeunes yi daan nañ wuy si moom comme boo gisee parce que li tax ma ne daan nañ wuy si di nga daan gis nit yoo xamante ne dinañ ñëw en plus dinañ leen poser ay questions pertinentes ba après ñoom sax dañuy jël seen seen numéro pour naa la yeneen activité bu amee da nga may woo hmm. te comme bi ñu nekkee au CM Mandié pour ça aussi dañ siy gis ñu ngi gis ay résultats parce que ba dem chaque année principal bi daan wax day am ay cas de man mii fa laa Mm-hmm. mais da ngay gis chaque année da ngay gis ay cas de grossesse yoo xamante ne ñu ngi fay mais bañ fa ñëwee ba léegi cas yi dañ commencé di wàññi mais ba léegi ne déggaatoo fa beneen cas de grossesse boo xamante ne élèves yi am nañ ko. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que ça arrive aussi parfois ngeen def ay tournées ci région yeeg yooyu. waaw parfois nañuy def ay tournées ci région yi comme yeneen ci ONG yi bu ñu organiser ay séminaire aussi dañuy tourner ci région yi aussi di sensibiliser nit ñi tamit. Mm. Euh, euh, aussi euh, li nga xam ne mooy accessibilité yenn produit parce que xam nañ ko ndaw yi nga wax ko ñàkk koo wax mm-hmm. donc tey ci yenn service yi lu mel ne ay préservatif yeeg yooyu est-ce que mm-hmm. dafa am peut-être benn aide boo xam ne da nga leen koy apporter ci côté boobu pour ñuy au moins bu kent ne mënuñu abstinence mais au moins ñu mën a protéger seen bopp voilà loolu comme loolu am na bu leen sensibiliser da naan abstinence bu fekkee gaa mënoo leen muñ abstinence boobu vous utilisez les méthodes de contraception comme ay a préservatif ak yooyu noonu mais waxuñu leen se ngeen jël préservatif yi à chaque instant abstinence mooy li gën nga téye sa bopp ba sa jour mariage mm-hmm. kon ba tey rek ñu nekk ak waa réseau population ak waa réseau PopDev di wax tey ci wàllub IST yi ak mhm. euh, li nga xam ne moom mooy euh, grossesse précoce ak yi nga xam ne moo ci lalu euh, dañ ci ànd ak ba tey keneen ku nekk ci réseau bi di lamintine Lamine ñu ngi lay nuyu Olay Mato maa ngi lay fay bu baax. Mhm. voilà Lamine tey ñuy waxtaanee sujet boo xamante ne euh, waa réseau POPDEF dañ ci yëngu bu baax euh, tey jii nii lan nga ñu mën a wax tey ci li nga xam ne mooy yéen sensibilisation bi ngeen di apporter ci wàllu IST yi ci côté ndaw yi. waaw euh, Olay Mato maa ngi rafetlu invitation bi par rapport ak émission bi tout d'abord maa ngi saluer de passage Maguette Thiam mi nga xam ne moom mooy le coordonnateur du réseau POPDEF. en ce qui concerne thématique bi ngeen di débat je crois bien que xale yi jotoon na indi ay leeral ci loolu. Mhm. donc peut sensibilisation bi ci ISC yi nga xam ne ñu ngi koy ñu koy euh, def ci ndaw ñi yaakaar naa ne c'est des renforcement des capacités et sensibilisation sur le terrain. Mhm. nekk na ay activités yoo xam ne nag dañ koy def rien que pour wax booy yi dans danger yi wax booy aussi lan mooy IST wax leen aussi tamit nan lañ mën a def ba IST boobu duñ si jot ou bien ñi nga xam ne jot nañ ci. Mhm. nan lañ mën a def aussi ba wér ci aussi. Mhm. Euh, tey jii nii euh, yaa ngi wax euh, da leen di wax exactement la lañ wax a def donc tey yan mooy service yi nga xam ne yéen da leen koy apporter yéen en tant que réseau ban service ngeen di apporter jeune jeunes yooyu comme ça ñu xam fan lañ mën a dem ak ban comportement lañ mën a adopter ci genre situation yooyu. waaw service yi ñu leen mën a apporter la bëri na parce que tout d'abord mun nañ service d'information bi ñu ngi leen di renforcer di leen jox. lépp leeral bi nga xam ne méngoo na ak euh, thématique bi ñuy débat muy essai bi mhm. lépp li nga xam ne information la de base war nañ loo xam ne war nañ koo xam ndaw bu ci nekk dañ la koy jox dèjà loolu benn service la bu leen di defaral. Mhm. deuxième service bi mooy booy yi nga xam ne jot nañoo am ISC. E. Mhm. des fois dañ leen di référence ak yenn centre de santé yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom. Mhm. en collaboration lu ci mel ni euh, Maristop International. lu ci mel ni aussi tamit euh, ASDEF ak yeneen centre conseil ak yi nga xam dañ leen di renvoyer foofu donc booy yi nga xam ne jot nañu am ISC e dañ leen di renvoyer ci centre yooyu bu ñu demee foofu. ay cas de référencement lañ bi ne ko ñoom dañ leen di faj dañ leen jël en charge gratuitement mhm. ñi nga xam ne rek nag dañu manque information ci affaire boobu des fois dañuy def ay euh, publication ou bien ay vidéo ou bien ay texte yoo xam ne day lié ak thème bi ñu koy publier ci suñu page des fois aussi tamit ñuy euh, organiser des émissions radio et des émissions télévisées pour que ñoom ñu mën a am information boobu mhm. Mm-hmm. am na aussi tamit mm-hmm. troisième euh, troisième position bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne nekk euh, am nañ contamination IST ba pare ba génnaat ci ñooñu aussi dañuy def benn suivi boo xam ne dañuy bañ après comme par exemple ku jigéen ci bu nekkee en contact ak euh, benn ak copain par exemple. Mm-hmm. ou bien mu nekkoon ku jigéen koo xam ne dafay am ay quatre gel ay quatre fois orange pour moi. donc kooku dañuy def suivi ba xool quatre personnes yooyu noonu yëpp. ndax ñoom tamit amul ñeneen ñun ko seqaloon. donc dina am benn suivi ci tout ginnaaw euh, yi nga xam ne détecté nañ leen. Mhm. Mhm. Ah. mais tey jii nii par exemple parce que bu dee entre jeunes peut-être ci ngeen di mhm. gën a mën a am facilité pour amante confiance waxante yenn yi mais parfois xale bu ñu xasee ba nekk ak mag rek wala nekk ak koo xam ne peut-être personnel de santé lag yooyu mun nañu am benn blocage. ñooñu mhm. évidemment loolu des fois dañ koy jànkoonte sur le terrain. Mhm. parce que ñun le sax lu ñuy def mooy dañuy former des jeunes pour que ñoom ñu mën a former seeni seeni ndaw maanaam euh, système éducateur yi. Mhm. parce que dañ ne bu dee euh, mag la dina am kersa wax yenn yi ou bien bu dee mag na ko tuuti si da mën a wax yenn problème yi nga xam ne bi rencontré na ko. donc sur le coup dañuy jéem former ay ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ak ñoom. bu ñu leen formé ñoom ñooy wàcc sur le terrain di def les les les les sensibilisation. Mhm. en tout cas euh, Lamine dañ lay jaajëfal bu baax kàddu gi am na solo donc dañuy delluwaat rek waxtaanaat ak ki nga xam ne moom mooy Khady nongo moom itamit euh, ñu continuer ci wàllu sensibilisation bi. Mhm. voilà mhm. donc voilà gannaaw gi nga xamante ne jox nañu kaddu ki nga xam ne moom mooy Lamine Tine bokk rek ci euh, réseau bi dégg ngeen ko daal dina wax ci pàcc yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy apporter ndaw yi ci côté kon euh, référence yi référé yi nga xam ne dañ leen koy référé ci yeneen euh, centre yi ak i tamit gën leen gindi ci comportement yi ñu mën a adopté ci bu ñu nekkee ci yenn situation yi tey jii nii xadi yow nga nekk jigéen ñu gis ne jigéen en mhm. général moom mooy gën a vulnérable ci yenn mhm. jafe-jafe wax nañ ko sànq ci grossesse yi par exemple bu njëkkoon da naan gis bu xale bu jigéen bi ëmbee ci classe ñu dàq ko bàyyi fa ku góor ki donc yooyu nekkoon ay mbir yoo xam ne yu yu yàgg la yoo xam ne euh, dafa nekkoon ay discrimination ci à l'endroit des femmes mhm. mm. allez-y waaw bu njëkk même ba léegi sax da gis boo xamante jigéen day nekk enceinte du continuer cursus am école yi nañ koy dàq lu tax duñ dàq góor góor amul lu muy perte da jigéen bi yow yaay am yow yaay souffrir yow yaay am ay métit accouchement bi yow la kon mieux vaut ñu éviter grossesse précoce yooyu noonu parce que yow dalay jàkk dalay yàqal lu bëri de onze doo jàng après boo sa sa jàng bi da koy arrêté après lan ngay def am na école yoo xamante ni duñ la jël boo nekkee seen kër après liggéey rek ngay continuer def mun nga sax bañ a continuer def sa liggéey parce que boo parce ko boo amul koo xamante ni mën na la teel sa doom. Mhm. Mhm. mu nekk ay situation yu yu metti quand même. Ah. voilà dañuy wax tey ci euh, actualité bi moom mooy coronavirus bi parce que mënuñu def émission ba pare te waxuñu ci. Mhm. tey au niveau du réseau est-ce que am nga am ngeen ay plan yoo xam ne lan ngeen ko pour participer à la lutte. voilà am na ay kii yoo xamante ne ñu koy kii pour yoo xamante ne ñu ngi ciy ñu ngi koy def pour affaire corona bi parce que comme ni nga ko waxee noo def émission ba pare te tuddoo ci corona bi parce que dañuy def comme ni ma la ko waxee ay panel virtuel yoo xamante ni dañuy sensibiliser jeunes yi parfois su dañuy gis ba am na benn thème boo xamante ni moom lañ abordé woon muy grossesse précoce ci affaire Covid 19 bi. Mhm. ak ak ay jeunes yoo xamante ni ñi ngi nekk Thiès pour ñu gën a moytu te aussi ñoo xamante ni ñi ngi Dakar tamit. parce que dañu gis ne li nga xam ne moom mooy wàllu feebar bi jamono ji dafa am benn bàyyeeku boo xam ne nemmeeku nañu ko ci askan wi peut-être wekkatuñu feebar bi comme niñ ko defoon bu njëkkoon mu nekk ab te pourtant euh, décès yi ñu ngi continuer di am. waaw décès yi mi ngi continuer di am te loolu yëpp li ko waral parce que am na ñoo xamante ne dañuy naan jusqu'à présent da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi naan feebar bi amul. waaw ñii nañ koy politique nee nañ ci am na ci amul dee yi yokk nañuy yokk seen kii seen cas de décès yi na ngeen di fay xaalis te loolu boo xalaatee ci loolu noonu yëpp yow doo mun a moytu da ngay gis koo xamante dañ koy naan takka sa masque wala nga yow nga takka sa masque mu lay romb di la saboote naan la corona bi amul lii woon li amul. Mhm. mun nga dindi sa masque loolu. alors que corona mi ngi ci dëkk bi bel et bien mi ngi ci dëkk bi kon mieux vaut ñun ñu moytu bu baax pour mu dem. Mhm. parce que aussi euh, bu weesoo loolu mais ndaw yi ñoom ñooy véhiculer feebar bi xëy na ñoom euh, dañ ciy génn mais buñ oh. demee ci kër yi yóbbul ko mag ñi daal di leen lor je pense que loolu yi tamit nit ku ne war na koo daw. bu ñu demee. ci mag ñi seen kër yi bu ñu demee ci personnes mm. âgées yi wàll leen ko. parce que ah. personnes âgées xam nga doxuñu. waaw xale yi ñooy dox ñëw andi feebar bi. Mm-hmm. Mm. xale yi ñoom ñooy doxi di indi feebar bi. en plus lu ñu toog xoolal imagine toi affaire du couvre-feu bi ñoom dañuy nekk di def ay manifestation pour la ñu ne couvre-feu bi jeex na heure boobu fan ngay dem. Mhm. ak lan ngay doxi mieux vaut kon nga toog xaar parce que lu metti yàggul dundoon nañ moom ba fii. Mhm. peut-être li si def bëriwul parce que boo gisee ñoom ñoom ñoo sonal seen parents yi. Mhm. boo gisee ñoom dañu naan coronavirus li muy yóbbu lu si bëri ay mag la parce que day fekk si ñoom feebar boo xamante ni li nga gis koo xamante ni dégg mu ne am na corona am diabète am tension. mu ñëw yokk ko loolu rek mun na tax cas de décès yi lépp ci personne âgée yi lay nekk. Mhm. voilà mu nekk aussi jamono joo xam ne ñu ngi naan euh, njàng mi tàmbali wax na depuis démb. Euh, Khady mhm. yow yaa ngi jàngi école ba léegi. waaw maa ngi jàng école ba léegi. Mhm. est-ce que tàmbali nga cours yi. non non ñun tàmbalee duñu classe examen yi ñoom ñoo tàmbali. Mm, d'accord d'accord donc. Mm. mais tey jii euh, est-ce que booy waxtaan ak peut-être say camarades de classe ak yooyu ñoom amuñu tiitaange pour ñoom it tamit bu ñu tàmbalee njàng mi. waa élèves yi ñoom ñu si am tiitaange bu baax parce que ba léegi gis na ñoo xamante ne commencé nañ te seen parents yóbbu ñu ñu jàng parce que ñeneen du ñu leen yóbbu parce que li ngeen wax leerul. dangay dem comme sama recipe dem jàng bi nañ leen wax ak yéen jox ay masque benn masque lañ leen jox. Mhm. ndox bi nekk seen buntu école sax joxuñu leen fu ñu raxasu si joxuñu leen ay gel alors que ñoom dañoo waxoon dinañ jox élèves yi ay gel. Mhm. antiseptique masque mais gisoo si dara kon mieux vaut parents yi ñoom ñu bàyyi seen doom yi ñu dem jàngi disposition yi si war ñoom bu ñu amee les moyens ñoom ñu dem jàppale seen doom yi. Mhm. utal leen ay masque ak ay tuuti gel yoo xam en plus distanciation yi. ñu respecté ko. Mhm. te jàpp na aussi tey état am na responsabilité parce que boy diggee loo xam ne defoo ko. tey voilà école yi du ñu am yenn dispositif yi loolu tam day difficile. voilà état bi tamit am na si part de responsabilité parce que yow ku nekk yor nga sa doom euh, nan laa koy waxee boo nee élèves yi dañ dem jàngi ji war nga am loo xamante ne da nga ko fay teg lu leer boo gisee parent yi ba tey bàyyiwuñu seen doom yi ñu dem jàngi ji loolu la parce que dañu naan nañu sauver année blanche léegi ñoom nee nañ année blanche boo xam te ne koy sauver léegi nga bëgg a tayle ba kenn doomu jàmbur moom mu dee pour yow nga sauver sa année blanche comme mieux vaut ñoom nee nañ comme mieux année blanche am mais mieux vaut ñoom tamit ñu bàyyi seen doom yi ñu dem ñoom ñu jox leen ay gènes moo gën. Mhm. ku nekk da nga fagaru sa côté waaw ku nekk da nga sa côté. état bi moom bu joxewul yow tamit nga jàppale sa doom fagaru parce que ñoom buñ demul di jàng. moom tamit day redoubler année blanche arrangé wul état arrangé wul élèves yi tamit. Mm-hmm. voilà ba tey rek mbokk yi ngeen di déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñu ci waxtaan wàllu IST ak li nga xam ne moom mooy wàllub grossesse précoce ndaw yi ñoom tamit am nañu kàddu ci mbir mi te dañ leen di war di jox kàddu bu ko defee ñoom tamit ñu mën a wax seen xalaat euh, tey jii nii euh, Khady boo ñu doon jox ay suggestion tey bu la ministère de la santé waxoon par exemple dañoo bëgg a tey ji ngeen jox ñu suggestion yéen waa réseau POPDEV pour que euh, li nga xam ne mooy wérgu yaram ndaw yi gën a ñoŋ tey lan nga leen di jox comme proposition. comme dinaa leen benn dinaa leen wax leen que ñoom tamit am nañ ci part de responsabilité. Mhm. waaw parce que yow doone ONG yi fi nekk kase ñoom ngay bàyyi ñuy dem di piloté yow tamit da nga war a wàcc sur le terrain pour mun a waxal xale yi. Mhm. kii li accueillir leen nga jox leen la bon information en plus ñu jàppale jeunes yi bu baaire grossesse yooyu comme ni ma ko waxee di leen sensibiliser parce que bu ñu ne sensibiliser nit ñi ba sonn jeunes yi parce que da ngay dégg ñoo xam dañu naan sensibiliser nañ ngeen xale yi ba sonn arrêté wuñu comme ni ngi continuer di ëmb lañ toog passé suñu bras non non mhm. suñuy moroom la ñun ñoo leen mën a aider comme ni nga waxee waa ministère ñoom tamit mën nañ jàppale jeunes yi mhm. pourquoi pas ñoom tamit ku ñu nekk ñu jàppale jeunes yi même def ci région yëpp aussi moo am ay centre conseil ado boo a waxal ñooñu bu baax mhm. loolu am na solo kon da nga gis na tey ci programme peut-être ministère yi ndaw yi dañ leen ci xaw mhm. beddi tuuti. waaw loolu moom tamit ci parce que yow ñu ngi naan kii nii lu mu ci dañuy def ay relais pour jeunes yi rek leen war a jox ay relais alors que loolu yëpp gisoo ko da ngay gis benn jeune mi ngi nekk di dang dang ci ONG yi et mais nu mu tuddee ci waa organ nu mu tuddee ci waa ministère bi tamit du ñu leen jox seen gëdd loolu la du ñu leen jox seen gëdd. Mm-hmm. mais koo gis mi ngi jàppale moroomu jënam deful dara bu ko nekkoon nga gis jeunes ngi def ay yeneen lu bon jopp tàpp jopp topp seen yeneen moroom yi di def lu bon mais defuñu ko ñu ngi nekk pour jël seeni moroom indi leen ci yoon bu baax kon ñooñu xam nga dañ leen war a jàppale. Mm-hmm. tey ci wàllu financement tey jii nii est-ce que yéen waa réseau bi par exemple am ngeen ay matuwaay yu doy pour mën a vraiment def seeni activité parce que activité yi ngeen di def dafa laaj euh, ay moyens. Mm-hmm. Mm-hmm. ah pour wàllu financement loolu moom est damay naan sax est am nañ ci parce que yow yaay xool boo waree def activité yow yaay dem si sa kii nii lu mu tuddee ci sa si coordonnateur bi nga ne ko ah am nañ activité sur le terrain mu jox la nga dem préparer def affaire say ci chef et tout loolu moom est ce que am nañ ci maximum de financement. Mm. mu nekk lu du doy waar parce que quand euh, financement yi moom mooy tax tey jii. financement yi waaw moom moo tax ñu gën a mën a continuer dérouler suñuy activité kon neen da ngeen di cotiser seen biir pour mën a amal seen yenn activités yi. no pas cotiser suñu biir mais comme am nañ ay kii ni directeur boo xamante ne moom mën nañoo jàppale ci moom lañuy dem aussi mu jàppale ñu ci affaire u kees beet yooyu noonu. Mm. voilà pour mhm. revenir un peu ci sunu euh, sujet IST bi balaa ñuy euh, daal di kon euh, mhm. tàggatoo tey par exemple parce que xale yi c'est bien ngay discuter ak ñoom mais ndaw mag ñi aussi parents yi parfois di leen approcher tam daf si baax pour ñu gën a jege seeni doom est-ce que genre activité yooyu da ngeen koy def. waaw parce que dinañ def ay VAD visite à domicile boo xamante ni parents yi ñoom si boppam ngay waxal pour ñu éviter sujet tabou bi parce que da ngay dem nga waxal parent ndax yaa ngi waxal sa doom ci affaire li non non du ma waxal sama doom dañ leen naan aw ma am na ñoo xam te dañuy naan parents yi amuñu jot parce que dañuy dem di liggéey mais le peu de temps boo wàccee benn une minute sax boo ko taxawee laaj ko waxal sa doom ci affaire sexualité nga jimbi sujet tabou bi yaakaar naa ne bu yàggee sujet tabou bi dina dañ mhm. saay boo ñëwee benn wàcc benn une minute nga waxal sa doom dina dem ba moom lu mu gis ci mbedd bi sax du ragal ñëw wax la ko yow te aussi gis nañ ne léegi euh, xale yi dañuy dugg ci ay mbir yoo xam ne ay mbir yu doy waax la de plus en plus. ay jeunes euh, dañuy mhm. fàttaliku vidéo yi nga xam ne amoon na fi euh, mara day taali mu nekk mbir yu doy waax. ay vidéo mm, mm-hmm. mhm. mu nekk lu doy waar ay ndaw yoo xam ne treize ans quatorze ans ñuy def ay ay soirée yoo xamante ne di fa def naka su noonu vidéo yi tas ci dëkk bi loolu yëpp tey mu mel ni parent dañ dem ba mel ne lu xaw a démissionné wala xale yi ñëw të ah parfois tamit am na da gis xale boo xamante ni yow papa yaayam papaam yar nañ ko fu mu koy war a yaree mais mbedd mi la da génn gis koo xamante ni da lay détourné mais ma damay naan yow dañuy naan àndandoo day wàlle man lool man lool mënuma ko langu parce que yow jeune consciente boo gisee sa morom def lu dul yoon yow yaa ko war a woo ba mu ñëw nga ne ko lii nii nga def du du yoon bu ko nangul aussi yow tamit nga xam sa bopp parce que rafetul nga gis jigéen nga xamante ne mi ngi def ay yenn soirée yoo xamante ne ëllëg affaire bi du tey ay dix ans nga am doom ñu ne la ah sa yaay moo fi demoon def si vidéo la motif bi xam nga loolu rafetul si déggin mhm. Mhm. Mhm. rafetul euh, mu nekk kon kàddu yoo xam ne tey jeunes yi war nañ ko mën a gën a déglu gën a am mental parce que li ngay wax mhm. ni dafa am solo c'est pas parce que ki may àndal def na lu bon que man dama ko war a def euh, donc ku war nga xam fi nga jógee xam li nga xam ne kon euh, moom nga bàyyi sa ginnaaw saa su ne koy sa kanam te bañ a nekk koo xam ne da ngay neex a influencé loolu tamit ci la bañ a nekk koo xamante ne da war a neex a da ngay gis koo xamante ne dugg naa ci lii ah sama xarit bi de moo mën a moo dugg ci lii dugg naa ci après yow ban conséquence da dugg booy dugg ci dara da xalaat avant. Mhm. conséquence yoo xamante ni moo la ci war a mën a dal imagine toi nga gis ñoo xamante ni vidéo la motivé seen parents yi buñ ko gisee après la ñuy def bi ñu jarati dara si dëkk bi mhm. non seulement yow tamit joo jarati dara si dëkk bi foo romb la joxoon ña vidéo bi yow yaa ko def mhm. sa juddi même chose wax ko mieux li ñuy def tamit ñu xalaat ko bu baax am na solo Khady en tout cas dañ lay jaajëfal bu baax euh, ñu may la nga tàggatoo ak mbokku auditeurs yi waaye tamit euh, ñaaxaat rek sa mbokk ndaw yi ci côté IST yeeg grossesse précoce yi. ok man kii bu may wax sama mbokk yi rek sama mbokku jeunes yi laay wax parce que affaire grossesse ni li may wax comme sànq laa leen wax da ngeen naan boo leen mënul muñ grossesse yi ngeen dem def ay méthode kii nii jël yooyu. mais mieux vaut nga téye sa bopp ba jour sa jour may loo xamante ne leew na la parce que ji góor amul dara lu muy perte wax naa ko sànq góor amul dara lu perte da ngay gis koo xamante ni sax tooñ na doomu jàmbur après lan la lay wax dama uti ji sa baayu doom léegi lan lay nekk comme ni ñu koy waxee cinq mille neuf cent dix yi rek lay nekk cinq minutes de plaisir neuf mois de grossesse un enfant zéro avenir parce que doo am benn avenir comme mieux vaut dama ne wax ñu def les méthodes A B bonne fidélité condom dépistage. voilà kon dañ lay jaajëfal bu baax. ok maa ngi rafetlu bu baax invitation bi kontaan naa trop ak thème bi ma jox bu baax kontaan naa trop. Mm-hmm. di jaajëfal aussi sama jeunes yi ma doon déglu. voilà di la jaajëfal bu baax Khady nongo di fàttali ni tey yow lañ doon dalal ci sunu émission SOS santé nga nekk euh, membre ci réseau PopDev euh, waxtaan nañu itamit ci euh, émission bi ak Lamine Tine moom itamit bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réseau bi nekk koo xam ne aussi ku disponible la di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax bon courage di jaajëfal mbokk yi ñu doon déglu ci seen émission SOS santé dañ leen di dig daje vendredi prochain incha allah beneen thème ak beneen numéro beneen invité ci Rewmi FM 97.5.